Touba Aliya ñuy loo xamante ni mbégte ak bànneex day jural sunu téléspectateur internet yi ñuy bàyyi xel si Pikine ci li ma ci jublu ku ko dégg war ko xamee liggéey ngir lii ba noppi di ko yàq ngir mel ni kële moom ndax day at du jëlu waaw sunu ñaq yii nag ak sunu yéen yi ak sunu jëf yii ñu def ci sëriñ bi bu nu ko xeeb waaye bu nu ko naw nanu yëg na daal sëriñ bi santaane na am nañ yéene dugg nañ ci biir yéene ja bàyyee sëriñ bi suñu bopp waaw la ca desit mooy réew mi coow yi ak wax yi bari na waaye li am solo mooy dañuy war a dellusi Cheikh Abdoul Moustapha al Karim yal na yàlla dolli njëggalam ak i leeram ndax ku ku ku taxaw ci liggéeyam Cheikhul Xaddim bi la fu mu yegg rek am na ca wàll boppam boo xam ne ku sëriñ bi jaboote nga moo tax mu am ko ci waaye ak njàmbaram may na ko am na mag mu baax mu ñëw di waxtaan ak moom ñeewante ko xam naa ne ci tolluwaay bi ak cër yi ko yàlla dénk mu ne ko danga may danga may fexee sonnal ci sa bopp dimbalee ma defar sa bopp kon loolu it maa ngi koy jot li ñëpp kenn ku ci nekk ma séq koog yow man danaa la dimbale man ngir sonn ci sa bopp ak defar sama bopp ci li ma war ci defar sama bopp ci baax mu tënku ci diine ak ak taalibe kon kenn ku ci nekk nag na ma dimbalee ci yéen yi nga xam ne sañ naa leen koo wax te ñu séq lu dox su diggante nu nag yéen ñoo xam dañ koo séq man yow wala dama ko sama wayjur moo ko séqoon ak sama wayjur nga koy sool ci man ma lay xamal ne dee ko xëyal ci lu baax di ko bëccëgul ci lu baax di ko gont di ko fanaanal ci lu baax kon ku ne na nu dimbalee defar boppam bi set gisee bariwut njariñ ndax yi tey bari na te yitte yi soxalante woo na ci barab yu ñu bokkul nekk waaye ku ci ne fa nga ne rek gëmal na yaa ngi ci biir lu baax boo nekkee ci sëriñ bi yaa ngi ci biir lu baax boo nekkee ci lu baax it yaa ngi ci biir sëriñ kon kenn ku ne lañuy dimbalee euh, sàmm boppam ci lam ko war a sàmmee ci ne ca lam war a ne coow yi ci réew mi bari na ku ne xam na ne am na fu réew mi toll am na fu réew mi jëm ci ay weer yu yàggul euh, kenn ku ci nekk nay nay xolam ak xelam ca la muy wax la muy jëf seede yàlla. di lan lay jëlee si biir Touba yaakaar ni dina nekk loo xamante ni mbégte ak bànneex day jural sunu téléspectateur internet yi ñuy bàyyi xel si Pikine bi ñi nga xam ne ñun ñuy dégg si Pikine Biz rajo ñu di leen wax ni màggalum jàmm sëñ Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg lool tëwee.